je suis d' accord avec lui parce que y' a des y' ñoo xam ne grâce à à moom. Mm-hmm. ils sont devenus députés mais bu ñu demee à l'hémicycle là-bas day rangé wu de l' autre côté. Mm-hmm. loolu la lañ mu dal ko moo tax mu ne il part avec APR rek. Mm-hmm. mais son mais cette décision bi euh, waroon na def beneen waroon ut beneen beneen palliatif. tu comprends pour. Parce que, attention, euh, l'élection passée là, si il n'y avait pas le PDS, il irait au deuxième tour, hein S'il n'y avait pas le PDS qui l'avait soutenu, mhm. il irait au deuxième tour. C'est vraiment le deuxième tour. loolu lay doon de gis nga xam nga kenn koo xam ne dañ dañu war a bàyyi xel ci moom mooy Amadou Ba Ah parce que kii ak li ko Macky mu ko son parti saboté mu fexe bi am 35 pour cent le gars là wan ko wan ko bàyyi xel bu baax il mhm. peut se dire que pour cent yi moom moo ko parce que son parti n'a pas voté pour lui mhm. ah à cause de Macky Macky daf ko tàpp ba kii. Mhm. Macky roceeku il a fait des cro des il est parti avec d'autres mhm. malgré cela il y a eu 35 pour cent xaw ma 37. 35 pour cent. donc ce gars-là. Mhm. qui à lui seul à ce pourcentage. war nañu bàyyi xel si moom. et PDS APR réew mi. Hmm? PDS APR réew mi. dinañ pour cent xaw su la waxuma ay parti am fayda ay fay fay fay fay. waa sàmm sa kàddu nag. Ah? Bougane Khalifa Sall Pur. ma ne ñooñu nag. ay 2 pour cent 12 pour cent 3 pour cent moom mu si indi dara gis nga xam nga bu Bougane. Hmm. problème. Hmm. mais mais dès le premier tour. Hmm. il devait se prononcer. deuxième tour la doon xaar. moo tax it. deuxième tour baa ngi nii. moo tax it amul. non léegi non non tour bi foofu la deuxième tour ñëw. Mm. mu seet le mieux placé. Mm. a il a deuxième tour am la législative yi la. non ça ah, kii. Mm. président sincère bi laa waxoon. il n'était ni candidat. il n'était dans il n'était coalition. il avait dit qu'il deuxième tour. mais loolu la observateur yi foogoon. foogoon nañ ne élection bi du doon benn tour j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui parce que honnêtement la vérité c'est mm-hmm. yaa ngi dégg ngi beaucoup mm-hmm. il a beaucoup d'amour dans ce pays mm-hmm. mais la seule le seul problème c'est surtout problème temps yi pas ça non na na dal tuuti na dal tuuti dal tuuti Uh-huh. na dal tuuti mu bàyyi. temps yi mu ne ma temps yi maa ngi koy liir mooy kii fii. mais doo ko bàyyi mu yëngal géem bi. ah day yëngal géem bi. mais ma mën nga ko d'une autre façon. Mm. ah mais eh, Ousmane Sonko da doon live. non gis du noonu du noonu du noonu. Mm. yéen yéen ngeen jotagul. yëngal setagul mhm. c'est la massification actuellement pour aller là-bas boo demee fa campagne bi mhm. nga yëngal léegi opposition bi ban coalition nga gis ne moom moom moo moo nekk daal bi gën a dëgër coalition waa ci opposition bi moo xam benn affaire mhm. tous les partis traditionnels la vont disparaître les partis traditionnels yi nga xamoon vont disparaître PS Le PS va disparaître. Le FP va disparaître. Mm. la gauche a, a, disparu. Le PDS a... Maintenant, il reste maintenant que ces jeunes-là, mm. que ces jeunes, Bougane, mm. Sonko, mm-hmm. xaw ma keneen ñooñu la. ma ne ko ngeen wax ko. ñu def attention ñun pare nañu. Mm-hmm. est-ce que parce que je veux dire. oui c'est parti là. Mm-hmm. mais c'est fini. PDS jeexal na. la APR jeexal na. Mhm. ay yóbbaale ma yóbbaale ah kii di ma tudd PS. Mhm. Ah, jeexal na ah parce que ñoom isam ils ne peuvent rien arrêter dañu naan dañu la rek lu lorot ñu far loolu lañ fi nekkee. Mhm. loolu lañ fi nekkee nañu wax ni dëgg. loolu lañ fi nekkee. lu lorot ñu for dugal seen poos te. ñëpp de ñetti ñetti ñu nommé foofu rek ñoom ñoom ñooy def sa kii bàyyi gaa yi fële mais c'est pas normal. Mm-hmm. yow mi fekkee président yi fi jaar yëpp. Mm. Senghor Abdou Diouf ab Wade Macky Sall lan moo tax Sénégal ku pare rek génn réew mi. ku pare génn réew waa waaw loolu pour lan la lu waral loolu. non non Ablaye Wade génn réew mi mu ngi fi. non njëkk na génn trois ans. après ah? ñëwaat non parce que Ablaye Wade. Mm-hmm. il a une maison là il a une sa femme a une maison à Versailles. mag la. mais mu ne ma faju ji dafa kii dafa affaire yi la preuve en est il est là il est revenu. il est revenu. après il n'a pas quitté le Sénégal.